ni sawar bi bàyyil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 man maay Margo Cissé Madamel couturière ah di euh, yaay sama doom ji ba ñëw fekk si ah di ko souhaiter vraiment màggal gu neex biñ fi ñëwee nañ fi ñëw ba léegi waaye macha allah dara jeexul waaw lal ya def na lu ne lu ne lu ne def naka waaw rey na gëléem rey na nag xar yi ñëpp benneel bi daal macha allah yal na ko Sëñ Tuubaa fay voilà muy nit ku baax tamit jëkkëram tamit. Euh, sëñ bi tamit di nit ku baax voilà ñu nekk fii nii ñëw fii dem ñëw ziar si ka jërëjëf merci. waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu xaw maa ngi tëdd Soxna jaaro bu so di xaritu Leyla bëgg ko na ba sama biir xol bi ah màggal gi xanaa neex rek xam nga màggalu Serigne Touba moom day neex neex rek la def barki Serigne Touba ndax xam nga loo gis rek mbégte la ndax àdduna amul solo te dee daa gaaw. te ñun gëmmuñu ko dul Serigne Touba yaakaaruñu ko dul Serigne Touba te Serigne Touba rek la ñuy gëm ba keroog ñuy de suñu bakkan gi de Serigne ko jox te bisu màggalu tey bii fas yéenee màggal rek ci kër laa waaw waaw def ba mu baax xoolal li lañ def ci madame Diaw xanaa ay wax day maa ngi leen di ziar di leen nuyu ci bés bu tedd bi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp comme niñ ko daan defee rek at mu nekk. jéem a bégal gan ñi toppatoo leen ba ñu bég rek ci 18 safar gi ni ko sëñ bi santaanee rek noonu lañ ko nekkee di ko defee. secret madame jaw mooy li liñ doxañ ci 18 safar rek ni ko sëñ bi bëggee rek bëggal gan ñi toppatoo leen ganale leen ba ñu bég macha allah ren mooy deuxième édition bi mais lépp ci sant yàlla la bokk rek ndax ñu ngi ko ñu ngi ko bâchoon ci terrasse ba defar ba mu baax ngelaw lu ñëw xam naa ngelaw lu tamit day màggal si. ah dañ koy comprendre rek daal di jaxase foofu kii mais garaawul léegi ñu dressé waat ko fii rek comme d'habitude defal ba mu baax ku nekk ak sa façon rek ak màggal gi chaque année dañuy jéem a rek nu ko nu mu gën a baaxee rek noonu lañ koy defee waaw mooy des dressé rek defal ba mu baax bégal gan yi bégal ñëpp sëñ bi kontaan. ñu ngi sant yàlla julli si sallallahu alayhi wa sallam di bég ci am mbégte ci bis bi bis bi nga ne di bis euh, Serigne Khadim xaadimu rasuul moo sababa bis bi tabaarakallaahu képp ko fi ñëw mu wuy si ci turu xaadimu rasuul tabaarakallaahu ñu sant yàlla bu baax a baax a baax waaye maa ngi sant borom kër gi mbiri si Maxtaar Jaw maa ngi ko sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla eh, li mu munoon ren yal na yàlla may may mu mun déwén du raw foofu jaay si sallallahu alayhi wa sallam xanaa mbégte rek moo ci am tàngoor bu bëri bi waaye tawaakal mbégte la mbégte la waaw. inni la xelu li man mama amuda yaade loo yaju liyaami husna wa bi inni la xelu li man

bi